jàppandul lu tax su ma yeboo di la ñaanal ne yow ñàkk rek internet euh, sn point ñu ngi leen nuyu di leen dalal euh, tey ñu ñëw fii seet si suñu papa Ablaye Diaw ki nga xam ne moom c'est une légende di micro comme di dit ci euh, spécialiste du sport rawatina football papa ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sanslimite sn point waaw kon ma lay fay di leen nuyu euh, di nuyu waa sans limite ak ñoom ba ca kanam a kanam. d' accord euh, Père Laye ñu gis ne Sénégal dafa ñàkk final bu mu doon joué contre l'Algérie ci Coupe d' Afrique des Nations euh, ñëpp foogoon ni cette fois si c' la bonne euh, impression noo dundee loolu. Euh, le plus normalement du monde parce que. euh, le Sénégal était en finale de Coupe d'Afrique kenn ay gagné kenn mooy ñàkk alors euh, gis naa ñu ni waa ñun gis ñun de ñu ni ñun ñu ngi finale rek di perte ñu ngi def allusion aux juniors contre Mali ci robu di def allusion au filles bërki démb basket contre Nigéria di def allusion à l'équipe senior du Sénégal ci finalam bërki démb ak Algérie contre Égypte mais man leen ñooñu xam nga lu ma leen di wax on est en finale lu ñu wax biñ daawul ñëw final yow daawuloo ñëw final di pat mel na ko yelloo woo ko tey jii nga ñëw final perte naan lu tax ma perte je rappelle que équipe bi gën a tiitre au monde ci football sa première finale de coupe du monde c'était au Brésil chez lui daf ko perte moo di Brésil daf ko perte euh, benn waaye dafa ni ma est-ce que mën naa résumer euh, mu ni ma ci gàttal noo expliquer suñu finale ak Algérie ma ne ko Algérie daf ñu mag Algérie daf ñu mag Algérie bi mu amee niveau mondial booba ñun xalaatuñu dem dans le monde parce que tey jii pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations il faut être de niveau mondial ah heureusement ñu ne la Coupe d'Afrique des Nations et la troisième compétition dans le monde après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe des Nations kon il faut être de niveau mondial parce que soo ko xoolee ñii ñëw di gagner ji Coupe d'Afrique ñu ngi ci écurie yu mag yi j'appelle écurie yu mag de grands clubs d'Europe ce sont les partenaires de Messi ou adversaires de Messi ce sont les partenaires de Cristiano Ronaldo ou adversaire euh, de Van Dijk et cetera ñiy final ballon d'or yi ngay dégg dans le monde ñoog africain yi bokk nañu championnat bokk nañu sox léeg-léeg ay mayo di partenaire wala di adversaire gis nga fi ñu Algérie magee euh, c'est dans le passé je disais à quelqu'un Algérie bi mu ñuy mag booba tam ñun français la ñu ñun ñëpp ñun français la ñu Algérie di français il jouait en équipe de France les Algériens nous on ne jouait pas en équipe de France parce que amuñu woon niveau bi soo xoolee avant ñuy finale coupe d'Afrique des nations ñun ak Algérie Algérie daf ñu battre partout avant notre finale de l'autre jour gis nga de Algérie daf ñu battre partout lépp lu ñu bugg def rek Algérie def na ko ba pare. nous voulons euh, je commence par le club au Sénégal les gens ne pensent plus gagner une coupe d'Afrique en club Algérie def na ko ay yoon yoon ba fàtte gisaguloo algérien bu ñëw au Sénégal. di wut club pour être professionnel ko fi gisagoo un Algérien professionnel dans le championnat du Sénégal ay Sénégalais nga fekk professionnel dans le championnat d'Algérie loolu yëpp ay début de réponse la ci li nga jëm pourquoi ñoom ñu capable donner du travail à des footballeurs sénégalais les sénégalais ne sont pas capables de faire venir des footballeurs algériens parce que suñu club yi ñu dimension bu ñu joxee cadre d'épanouissement à un footballeur algérien nga bëgg dem à la coupe du monde ñoo ñu fa jiitu ñoom ñoo ñu jëkk gagné à la coupe du monde c'est le deuxième football à gagner à la coupe du monde en 82 après la Tunisie en kon dama naan gaañi def leen ndànk. est que sur le papier la ñu wax ni bu ñu xoolee équipe bu Sénégal ak euh, équipe bu Algérie sur le papier Sénégal dafa mel ni moo ëppoon ay joueurs yu am dayo ah mel mais ñooñu dañu xamul Algérie dañu gisul équipe bu Algérie bi sur le papier euh, sur le papier. boo doon xool euh, équipe bu Algérie bi bu fekkee ni topp nga ko parce que gars ñi dañu saisonnier ce que j'appelle saisonnier moo di ñëw ñëw ci euh, euh, football bi le temps de la CAN te sa bopp rek nga xam léeg-léeg nga dégg Sénégal yi bu naan am nañu ngantum équipe mais xamuñu adversaire bi xamuñu adversaire bi xamuñu adversaire yi yan club la ñu nekk ñu ngi koy wax. sur le papier Sadio Mané est vice-champion d'Angleterre Mahrez est champion d'Angleterre. Sadio Mané aussi est gagnant de la Ligue des champions. de la Ligue des champions mais pour gagner la Ligue des champions moom laa la wax pour gagner la Ligue des champions le nombre de matchs du la génne du la jox heureusement que une équipe anglaise est aussi championne euh, championne d'Europe. Euh, le championnat, plus il est long, plus il est révélateur. Et là, je m'en suis tenu seulement à Marez et à, euh, et à Sadio Mané. soo xoolee entre Sadio Mané et le reste dafa am fossé entre Sadio Mané et le reste du Sénégal dafa am fossé ñun soo xoolee euh, gannaaw Sadio Mané Mbaye Niang ak Ismaïla Sarr ñoo doon suñu atu majeur en attaque Où est-ce qu'il joue en, en France, à Rennes Le football français est de niveau très faible. Où est le club français en quart de finale de Coupe d'Europe Où est le club français Il y en a qui disent d'ailleurs que Paris Saint-Germain a gagné la Coupe d'Europe, c'est parce que le championnat de France est faible. dañu nekk ci championnat de France bu faible boobu dominé ko bu ñu demee Europe tombé sur la plus petite difficulté daal le championnat de France il est très faible quand moi j'ai regardé Rennes comme le championnat du Sénégal dafa faible le championnat de France il est faible moo indi tuuti mu am fossé entre Sadio Mané et ses autres partenaires dafa am fossé. donc est-ce que Idrissa Gana Gueye choix bi mu def dem football Paris Saint-Germain est-ce que c'est pas risqué pour lui. non non c'est pas risqué surtout dafa nekk ci poste bu nga xamee ni les performances ne sont pas affichées Sadio fañ koy soxla kii euh, Idrissa Gana Gueye fañ ko soxla les les performances ne sont pas xam nga débuteur. di buteur wala di gardien de but wala di défenseur mooy post yu gën a sensible un défenseur il fait tout suite une faute équipe am jël but ñu culpabiliser ko un attaquant il rate des occasions faciles wala un penalty ñu rendre que responsable de la défaite mais boo dee joueur intermédiaire mën nga def zéro faute dans le match kenn du ci rendre compte zéro faute kenn du rendre compte ci ni def nga zéro faute mën nga sax rater ce match équipe bi gagné nga làqu ci. nga làqu ci recoin wu match bi Idrissa Gana Gueye lu ko Paris Saint-Germain di doyee récupérateur récupérateur lañ koy doyee récupérateur c'est celui qui prend le ballon de de euh, de la défense di ko indi ci entrejeu bi te fu mu ko jàppee bu xuusee 5 mètres gis ci kanamam ou Verratti ou euh, Di Maria ou Mbappé joxe ballon bi récupérateur tout son match se joue entre la surface de réparation et la ligne médiane mën nga fay mën nga fa def match bu kenn dul gis du poste bu sensible moo tax ci as rarement vu un milieu terrain ballon d'or ay attaquant rek ngay gis kon euh, j'ai espoir que nekkul ci post bu sensible et que bon heureusement que ses débuts sont bons voilà qui va le rassurer et le mettre en confiance. Euh, ñu dellu si waat ci kaaw Sadio Mané ñu bëri dañu décrier euh, ci CAN bi ne euh, il a manqué un peu de l'étoffe d'un leader ñu bëri dañ ne Sénégal daf ko xawoon manqué. ñi wax loolu wax nañ dëgg ñi wax ni Sadio Mané dafa manqué woon étoffe leader wax nañ dëgg ils ont parfaitement raison loolu moo ko différencier de Cristiano Ronaldo et de Messi parce Cristiano Ronaldo ak Messi mën nañu jékki-jékki génne seen bopp ci collectif bi génne seen bopp ci collectif bi boot match bi tegaat équipe bi sur la voie du succès parce que xam nga équipe mën na dem bay di dugal bii rek daal di tëmbaat équipe mën na dem bay di su dugalee bii dafay daal di tëmbaat moom la Messi di def moom la Cristiano Ronaldo di def Sadio Mané tenez-vous bien. ci le dernier geste lëndëmal na encore suñu match pendant la CAN parce que am na ci match bu jafe bu ñu am boo xamee ni la ko jafeel mooy penalty ba mu raté dafa manqué étoffu leader effectivement Sadio dafa manqué étoffu leader gis nga étoffe bi nekkoon ci El Hadji Diouf étoffe étoffu leader xam nga Sadio ak euh, El Hadji Diouf fi ñu xawee wute. Euh, c'est l'homme El jouf Diouf qui fait la différence la personnalité de El Hadj Diouf mooy li nga wax étoffe Sadio amagul personnalité El jouf dafa xaw mel naka sax ni El Hadj Diouf man-manam xaw na des comparé à à Sadio c'est comme si je disais Sadio est meilleur footballeur que El Hadj mais El Hadj Diouf a beaucoup plus de personnalité il se fait davantage les les El Hadj Diouf la ñu gën a ragal que Sadio Mané par exemple et ça c'est c'est important euh, c'est d'une importance capitale buy tax équipe bi euh, di gagner bu jotee ah bu waree perte nga génne ko ci lëndam par une action d'éclat mooy mooy dama lay abat terme bi nga jox léegi étoffe étoffe boobu la euh, Sadio manqué man ma jox la personnalité Neymar daf koy def Mbappé. daf koy def ay des attaquants de rupture ñooñu nga xamee ni ñoom ci seen bopp stratégie lañu ñoom ci seen bopp dañuy changer le cours d'un match par une action d'éclat match ba daal di jël beneen sens. loolu la Sadio manqué. Ah, te pourtant ñu bëri ñu ngi euh, doon xaar Sadio Mané ci euh, Ballon d'Or bi euh, classement bi ñu mujjee génn meilleur joueur européen ñu bëri gis ne Van Dijk bi ñu nomee noonu saajo maane moo gënoon mérité place boobu. non gënu ko mérité <laughs> non non non Sadio mérité na ko Sadio Mané mérité na ko mais gënu ko mérité son partenaire bi ñu retenir. heureusement ils soon du même club et dafa ubbi débat dafa ubbi débat bu nëbbu woon le fait que euh, bëtu football bi dans le monde choisir à Liverpool qui est champion d'Europe davantage un défenseur qu'un attaquant Firmino ma nga fa Sadio Mané ma nga fa Salah ña nga fa ñu ngi dugal ay buts mais bala ngay mën a attaquer défendre ba pare bala ngay mën a attaquer mën défendre gis nga dafa mel ne benn injustice bu ñuy réparer ak fi yàgg boobu injustice xam nga ba injustice monsieur Seck barisi défenseur dem na te amul ballon d'or Maldini défenseur dem na te amul ballon d'or kii encore euh, Roberto Carlos Brésil dem na te amul Euh, euh, ballon d'or l'actuel arrière gauche du Real Madrid borom njañ li gauche bi Marcelo dana dem te du ko am te yelloo nañ ko mais bala ñu bala bala ñu koy accepté ñu jox leen ko ba pare parce que tey jii bu ñu leen woon Marcelo daaw ballon d'or euh, Maldini Roberto Carlos Maldini ballon d'or après da nga naan tekk daal di si il le mérite. c'est parce que les performances des défenseurs ne sont pas affichées waxtaane naa ko léegi loolu moo indi ñu nekk ci 60 ans de ballon d'or deux défenseurs 60 ans de ballon d'or deux défenseurs un gardien de but un Levyachin du temps de l'URSS c'est injuste loolu lu koy faral di indi da ngay seetaan match football sa équipe gagne 1-0 sa gardien de but yow mi gagné un 0 sa gardien de but arrêté na penalty avant ton but que dugal bii la ñuy def l'homme du match fàtte gardien bi arrêté penalty bi léeg-léeg sax quand un gardien arrête un penalty kenn du ni le gardien l'a arrêté on dit le tireur l'a raté c'est pour dire que kenn joxul défenseurs yi ak gardiens yi seen mérite moo tax ci wàllu ballon d'or du ñu ñëw le fait que euh, Van Dijk ñëw euh, dañuy seet. Liverpool dañu seet Liverpool fi mu nekk ba dem finale coupe euh, d'Europe naka la ñëwee finale coupe d'Europe parce que waa ji dafay bëgg toujours équipe bi défendre ba pare parce que quand tu défends bien tu plus facilement foofu Van Dijk ma nga fa par exemple alors kon euh, Van Dijk mérité na ko alors Sadio Mané mérité d'y être Sadio Mané mérité d'y être mais ña fa nekk ña fa nekk il mérite d'être là-dedans il a l'avantage nag d'être jeune Sadio il est plus jeune que Messi il est plus jeune que Cristiano Ronaldo ñooñu lui aurait dit la relève du Ballon d'Or c'est peut-être toi c'est peut-être pour bientôt tu es jeune vice-champion d'Europe daaw ren champion d'Europe c'est vrai que ta CAN a été moins bonne etc etc parce qu'il est il était au coude à coude avec un un récent demi-finaliste un récent finaliste de la coupe du monde Messi en 2014 qui perd la final parce que les performances du passé xam nga dafay kenn du ci compter bi dafay influencer ancien vice-champion du monde champion d'Europe de de la dernière édition Cristiano Ronaldo day compter dafay faciliter sax ci li nga jëm alors que Sadio pour le moment amagul benn laurier amagul benn distinction loolu yëpp daf ciy compter. Van Dijk c'est vrai amu ko aussi mais pour une fois nga génn défenseur ci kanamu ay attaquant dafa di lu méritant et lu encourageant pour le football parce que dafa gën a yaatal le paysage du ballon d'or et Van Dijk mérite d'être bala que nit ñi di remarquer nag ñu jox ko ko ba pare après ci la nañ woy c'est vrai si Salah excelle si Sadio Mané si Firmino excelle c'est peut-être que parce que l'équipe est encore sereine pourquoi sereine parce que jëlagul but ku fa nekk ba jëlagul bi j'ai même oublié des gardiens de but qui parti partis qui méritaient le gardien le ballon d'or Buffon dana dem te du ko am Emmanuel Neuer bu Allemagne dana dem te du ko am Sepp Maier dem na amu ko c'est injuste moo tax pour bi yoon suñu indee défenseur et bon euh, c'est bon parce que dafay rectifier les erreurs du passé depuis ñoom Baresi ak ñoom Maldini ak ñoom Roberto Carlos Sadio est jeune entre vingt-cinq et vingt-six ans il a le temps de bien et surtout morphologie am permettre naka mu war jouer encore au niveau pendant cinq ans lu nekk xaj na ci. waaw ñu jógee ci ballon d'or euh, mondial bi ñëw ci ballon d'or africain bi ñu seetlu ni dafa am benn genre lu mel ni concurrence malsaine bu am ci de deux coéquipiers yi euh, Sadio Mané ak Mohamed Salah ñu gis rek match bi passé. boo xoolee euh, Sadio Mané sax dem na ba mel ni ku gedd ku mer kuy kaas euh, coéquipier am ni geste yi euh, Salah di footballé ak moom daal dafa mel ni kuy ku ko contre. Salah dafa faqale Salah dafa faqale waaw lépp rek pour moom man daaw ba ren maa ngi naan leen yéen yéen a ngi seetaan Salah ak Sadio Mané yéen ngi leen di xool Sadio Mané. générosité bi mu am ci Salah yéene bi mu am ci Salah li mu yéene Salah Sadio Mané Salah yéene wu ko Sadio Mané Sadio Mané jox na ko sax bal yu nga xamee ni mënoon na ko jéem dugal mu jox ko ko mu dugal ko Salah nag yooyu lay dugal et le dernier exemple en date moo di match dimanche bi nga xamee ni ku gis image yi même boo xamulee football sax xam ni bal bi Salah moome bi salaa am ki ci wetam ak moom ku nekkoon ci wetam Sadio Mané mais comme booba temps fekk na day wujje ak moom xam nga di ànd ak nit di wujje ak moom mooy indi lii Sadio marqué na Firmino marqué na moom marqué gul il tient à son but coûte que coûte surtout il veut redorer son parce que daaw situation bi amoon daaw Sadio Mané dafa doon xaw niru un tout petit peu liet naawu Salah mooy lan na nekk ci gannaaw na nekk ci gannaawam. waaw niru sax ku nga xamee ni euh, dafay am euh, rôle lu tâcheron pour Salah rôle lu porteur de pour sala mais léegi nag il grandit Sadio grandi ca diggante daaw ak ren ni Sadio Mané màggee sala màggee wu ko ñoom ñaar ñëpp daaw dañu nekk vice champion d'Europe pour avoir perdu la final ren ñu nekk champion d'Europe pour avoir gagné la final soo gisee ci finale bi sax Sadio moo gën a illustré wu ci final bi et ça continue Coupe d'Afrique des Nations ñëw chez Salah Sadio Mané gën ko fa briller ba final euh, sala arrêté wu ci dès les huitièmes de finale loolu yëpp dafay entrer en ligne de compte léegi nag bu ñu dellusee see en club la mu perte feneen daf koy jëm rattraper tout suite ci club bi c'est injuste te Angleterre yëpp nee nañu Sadio Mané raison les anciens de Liverpool. ñi nga xamee ni ñu ngi ci gannaaw équipe bi ñi daan gagné Liverpool les années 70 nee nañu Sadio Mané tu as raison Klopp wax na ko des na tuuti nag ñoom Klopp Sadio ak Salah tëju ci benn néeg benn néeg bu nga xame ni euh, wolof nee na ñu ñaari kuy bu ñu bokkee mbalka naan ba day ñaaw ba dafay tax bu benn bi dee naan benn bi nekk ca kanam tuuti tey jii tey bu Liverpool waroon def choix garde kenn bàyyi kenn xam nga mooy lan e juboo leen ànd leen wala ngeen teqali ko e juboo leen ngeen ànd su ngeen mënee juboo tant su ngeen mënul juboo ñu tranché tranché mooy xam nga lan bàyyi kenn mu dem tey ji bu Liverpool dee am ku muy bàyyi Salah mooy dem parce que Sadio Mané présentement moo ko moo ko gën pour l'équipe ba pare moo gën di xaleel Sadio Mané mën na joxaat Liverpool cinq ans Salah mënu ko joxaat cinq ans. moo tax mu égoïste bu doon sagoom gis nga même bu joué wul woon nekk ci tribune ba Salah bu joué wul woon nekk tribune ba Sadio Mané du joué du ko souhaité mu du ko souhaité mu mu mu def boo match parce que le match dans le match ñu moo di euh, tant que Sadio ngay briller moom day nekk à l'ombre de Sadio. loolu est-ce que du affaiblir à la fin l'équipe de l'équipe de Liverpool. ah si daf koy affaiblir parce que entre Sadio et Salah il y toujours un but en moins ah, keroog. bal bi mu jéem marqué c'est un but en moins parce que bii wu Sadio la parce que gis nga but doo ko programmé le but doo ko programmé le but dafay ñëw de l'action collective bu jotee but bi bu jotee am na ku fay nekk pour dugal ko mën na nekk keneen dañ ci nekk dans le déséquilibre déséquilibre bi su matee le dernier partenaire ki doit ériger du ballon qui doit faire le but mën na nekk ku ci nekk ça dépend du mouvement ça dépend de l'action collective mais su ni Salah bal bi ñoragul pour dem ci camp yi ñoragul togg bi pareegul nga bëgg que dugal par force mooy indi rate yi muy def daal di nag étaler au grand jour son égoïsme gars yi dañ koy segoo dañ koy sogo xool mais kuy footballeur gis nga que bu yàgg man le sujet je le traite en footballeur man sujet bi dama koy traité en footballeur duma ko traité en journaliste parce que journaliste du spécialiste du football fa ñuy defaree journaliste kenn du fa wax football kenn du fa wax sport da ngay nekk rek un spécialiste depuis la pratique ce n'est pas pour rien que les de télévision di wuti consultant ancien footballeur kon su may waxtaan football sama bopp laay waxal li ma gis ci Sadio ak ci Salah Salah daf koy siis dafa ànd ak moom ba pare di ko siis dafa ànd ak moom ba pare bëggul mu am teraanga dafa ànd ak Sadio te buggul mu dégg wiiw Sadio lu ko indi ba fii sax laabiram laabiram la ko yàlla di fay laa Sadio ni mu laabiree ci Salah moom la yàlla fay moo tax ñu dem ba Égypte Sadio gën fa réussir Salah en Égypte Salah qui est ah, ñu gis sax ay égyptiens dem bay taxaw ne Sadio maane moo gën a nekk joueur bu mag euh, Salah est-ce du loolu ak joueur yu mag yu mel ni ay légende Jimmy Carragher bu Liverpool taxaw ba nangu ne ñoom instant bi dañ nangu ne Sadio maane moo gën a nekk joueur bu mag Salah. yow ki nga xamee ni dangay xëcc xëccoog moom dem ak moom ba sa biir kër sa waa kër nii moo la gën ate baa ngoog loolu nag moom la bëgg équilibré waat feneen dans le match mais trop c'est trop trop c'est le football c'est un sport collectif bal yi mu war joxe aka aka bare léegi lañu gis nga euh, ku jàppaatoon seeni match di ko càmbaraat ay action Sadio Mané Salah Sadio Mané Salah Sadio a donné Salah le double de ce que Salah pour Sadio su fekkee ni saajo jox na Salah vingt balles de but Salah 6 la ko jox est-ce que xam nga Salah doon na ko tey di def Sadio Mané passe bu raté pour mu bañ dugal man dama koy wax en footballeur daf koy tey Sadio nekk position marqué mu bañ ñu ni joxu ko ballon bi mu tey ko raté passe bi tey raté passe. pour mu bañ ko dugal. ah c'est le footballeur qui part. c'est day ànd ak Sadio te bëggul mu dugal te pour mu bañ dugal bañ lu ni ko bal bi joxewoo ko daf koy tey raté ko kenn mësul gis li dana mës a ñëw nag ñu ni yéen ñaar ko mënatu leen nekk foog kenn dem. gis nga c'est tellement vrai ñoom ñaar pour te diir que Sadio gën a gis nga boo doon defar équipe Sadio Mané ak Salah des ngay wut arrière gauche ci ñoom ñaar saajo mën na jouer arrière gauche. Salah moo dul mën jouer arrière gauche Salah moo mën jouer arrière gauche parce que Salah léeg bala yëngu ci euh, ci ci ci action bi mu nekk action d'attaque mais su fekkee nii ñoom ñaar dañu war a euh, récupérer d'abord ballon bi euh, pour partir boo dee wut milieu terrain entre eux deux c'est Sadio boo dee wut latéral gauche entre eux deux c'est Sadio pour te dire que moo gën a complet Salah Salah le léegi nag pour se mettre en valeur comme le but est le geste ou l'instant le plus important dans un match son égoïsme moo koy poussé muy jéem dugal bi pour sauver son match ou peut-être pour masquer les ratages ou les manques de son match non non non euh, ak li Sadio def barki démb ak a baax ak a baax parce que léegi euh, cela veut dire et eh, arrêté ñu càmbar arrêté ñu seet trop c'est trop kii muñal naa ko pendant très longtemps maintenant ça suffit ça ça on arrête on arrête pour set maak moom su fekkee ni euh, euh, moom ngeen gën a soxla ma bàyyi leen ko dem feneen yéen ak yoon di que Sadio aurait dû quitter ren Liverpool. waaw gisoon nañu ay équipe yu mel ni Real de Madrid di daan bëggoon na ko. il y te gis nga Sadio dafa di sax un bon footballeur moo tax mu adapté à Liverpool du style am du style Liverpool. heureusement que Liverpool am na yeneen am na hollandais am na brésilien am na yeneen nationalité ba conception jeu mi ngi changé Sadio il est plus latin ci diggante Espagne Italie ak France bopp mooy style ba ci Portugal du anglais yi su gisee leneen dafa waroon dem te jot na nag léegi mu seet ñaata attaque de ses contrats euh, situation bi bu dooree su fekkee ni ku sama contrat dafa war jeex ren déwén du ma renouveler damaa teel wax léegi nii sama contrat bu jeexee déwén du ma renouveler parce que maag Salah mënuñu ànd. Euh, Père Abdoulaye jaw ñu ngi lay remercier di la di kontaan vraiment ci disponibilité bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sans limite je vous attends. merci merci beaucoup